Babacar Ngom gis nañ fa Abdou Mbow ak euh, ki nga xamante ni mooy euh, Pape Djibril Fall ak ñeneen ñi nga xamante ni sax ña nga woon ca salle ba ko ci mel ne euh, Maître El ak ñenn ci waa APR donc mu ne ko coalition boo xamante ni lëkkam bu ëpp na téeméeri parti bu ñu ko xaymaa sax dafa toll ci cent dix parti ak i mouvement te naka noonu ñoom it lu leen tax a jóg mooy rek fexe ba élection yi ñu dëtmal daal mu nekk ay élection yu leer ndax daal ñi nguur gi fi nekk dafa daal di bëgg sàcc élection yi ñu daal di dëtmal jàpp nañu anam ba ñu ko daal di amalee di salfaañe lu jëm ci li nga xamante ni la de dala yeeg yeneen yu ni mel jàpp nañu daal seen xel dalu ci élection yi ba tax na daal ñoom teg nañu seen coalition ngir ñu gën a mën a euh, surveiller euh, lu ni mel teg nañu tamit plan d'action ni ki le 27 bi ñu daal di euh, dëtmal dinañ amal li nga xamante ni mooy manifestation Moustapha. Mm-hmm. appel kuréel bu juddu euh, toll ci cent dix parti mu nekk mi nga xamante ni niki dem def nañ conférence de presse d'abord ndax jàpp nga ne euh, coalition boobule réussite bi nga xamante ne moom lañu ci xaar dinañ ko ci daal di am ak ban jàngat ngay def démb ci seen ndaje démb bi waaw ndaje démb bi de jàngat bi ci njëkk def mhm. mooy ñoom ñi nga xamante ne ñoo daje d' abord ñoom ñi daje ñëpp ñu si ëpp ay anciens candidats lañ ñeneen ñi bokkuñu ci élection waaye li ci gën a ràññeeku mooy ñoom ñëpp ci côté politique bi la ñu bokkee. Mm-hmm. mooy ñoom ñëpp opposition la ñuy woote. ñoo dajaloo ne ñi nga xamante ne kat tey jii euh, ñoo yor réew mi dañoo nekk di jaay doole wala dafa am doxalin boo xamante ne jël nañ ko te ñu am yaakaar ne doxalin boobu di bi gën ngir élection yi daal di leer ma am yaakaar ne tey jii su fekkente ne da ngeen di def kuréel ngeen di àndandoo pour xeex. boo xoolee ba ci biir ñoom ñu toog ñi ñëpp ci taabal bi mi Khalifa Sall di Thierno Bocoum di Pape Djibril Fall di Bougane di Anta Babacar eh, di Abdoul Mbow boo leen jëlee benn par benn dellu ci ginnaaw tuuti rek da ngay gis ne kii fii la nekkoon kii nekk fële kële nekkaat fële fa ca des. Mhm. c'est-à-dire ñoom pour ñu dajaloo ba def benn say sax maanaam waxandoo xàcceendoo dóorandoo damay njort mu doon problème. Hmm. parce que non seulement boo jëlee Abdou Mbow nga dugal ko ci biir maanaam mu fekk ji benn parti boo xam ne yeewi askan wi la am ñenn ñoo xam ne mosuñoo gëm yeewi askan wi ak ñoo xam ne ci opposition la ñu bokk ak ñoo xam ne dañoo seen yoonu bopp. Hmm. mais nag dañuy dañuy dajaloo def benn say xeex pour su ko defee. imposer euh, pouvoir bi seen pression su ko defee mu daal di indi ay waxtaan ci élection législative yi nga xam ne moom lañ dëgmal mhm. ma yaakaar nag ne loolu nga xamante ne moom lañ jóg euh, dëgmal ko euh, pour xeex bi ñu mën cee am ndam dañu juum mhm. parce que su fekkoonte ne tey jii dañ ne dañu bëgg mbir yëpp jaar yoon dañu bëgg concertation am ak yu ni mel ak yooyu noonu dañ koy laytaayalee loo xamante ne mooy droit maanaam yoon c'est-à-dire ñu ñëw ñu ne ah ñun kat li ñuy xeex nii dañuy gis ne boo demee ci constitution wala code pénal bi lii ak lii gars yi nañ ko lii ak lii du yoon lii ak lii du yoon mais ñoom ñu ñëpp lan lañ lay wax tey ci Sénégal ba mu dee Sénégal ba tey élection bi fi mu sa am concertation lañ daan def mais cette fois si dañuy xam ne c'est une élection anticipée. Mm-hmm. élection anticipée la mu am loo xamante ne. Euh, constitution bi moo ko tënkee élection anticipée ni muy demee yi nga xam ne dafa am lënd lënd wala leerul ak yu ni mel da koy jébbal conseil constitutionnel mu daal la ci àddu lan moo ci taxawaay bi ñu war a am et président l'a fait jël na daal di laaj conseil constitutionnel mu ne ko parrainage bi da nga ko fiy bàyyi da ko fiy jëlee caution bi fa mu nekkoon fa nga koy delloowaat diggante bi ñii dem élection caution xaju fi daal di koy wax nii ak nii ak nii nga koy defee maintenant léegi nag. yow boo tasee euh, assemblée nationale bi am nga soixante quatre-vingt-dix jours wala soixante jours pour jàpp date loolu constitution bi la article quatre-vingt-sept la waaye léegi loolu lépp mu sukkandiku si sukkandiku si code électoral bi daal jàpp date yéen ngeen jóg taxaw na ko noonu da nga waroon bàyyi lépp nga ñëw ñu waxtaan problème am na. Mm-hmm. parce que su fekkoonte ne tey ñoom dañu am ay textes yu ñu teg suñuy loxo nañu textes yi kat a d'accord boo xam ne jotagul wala beneen mbir mi tamit dañuy anticiper seen défaite dañuy anticiper seen défaite maanaam dem ci élection te xam ne yow mi pare woo mënoo bokk ci élection yi yaakaaroo am ci ndam nga daal di commencer di ruube di yuuxu pour ne waaw dañuy sàcc élection yi pour ëllëg soo perte nga mën a am lay. Mm-hmm. nga toog ne waaw waxoon naa leen ko waxoon naa leen ne élection yi dañ koy sàcce waxoon naa leen kii li muy def tegu ko fenn waxoon naa leen waxoon naa leen pour man euh, fuite en avance dañuy jéem jug si yoon boo xamante ne rek. Euh, pour euh, yuuxu ne élection yi sàcc nañ ko moo waral ñu def kuréel daal di toog nii te boo amee seetlu tuuti. Mm-hmm. nga gis euh, Khalifa Sall dalay leer ne xel xalaatu ñi dem législative te Khalifa Sall du si bokk parce que ñaari option moo taxaw seen kanam fi ñu toll nii bi jiitu mooy ñu boycotté wala ñu forcé dem élection parce que élection yi jàpp nañ date bi ba pare te élection à chaque fois bu ñu jàppee date dafa am ñaari am dafa am ku muy arrangé am ku mu dul arrangé. Mm-hmm. parce que ki pare daf koy arrangé ki pare du ko arrangé ñii nag élection date bi arrangé wu leen léegi comme arrangé wu leen dañuy wuti utiliser lépp loo xam ne ay subterfuge la yoo xamante ne arrangé na leen pour ñu ne ah ñun kat élection yi bu ñu demee bu ñu nërmeeloo sax nañ xam ne kat kon ñun dañoo sàcc bu ñu demee kat nangam am nañ xam ne kon élection yi jaarul yoon. am lay am lay lay la ñuy wut te demaguñu bëri ji. Mm-hmm. moo tax sax moo leen si doon tooñ. man ne yow xeexagoo naan ñu àtte la balaa nga naan àttel kay da ngay xeex ba pare. Mhm. waaye xeexagoo naan àtte leen kon loolu pour man <laughs> loo xamante ne la. beneen beneen mbir la daal en tout cas. <laughs> voilà ñu gis euh, ñi nga xamante ni jamono ji ñu ñoom ñoo gën a fes ci coalition boobule muy Bougane Gueye Dany muy Khalifa Babacar euh, Sall Abdoul Mbow comme ni nga ko junjee woon euh, sànq Bougane Gueye Dany moom moo doon wax ni anti système la ñu gis Khalifa Babacar Sall mi jógee Yewwi Askan Wi jafe-jafe am ak mu am ko fa foofu ca Yewwi Askan Wi finalement mu mu génn ñu gis Abdoul Mbow mi nga xamante ni ci réseau bi fi jugee la daal di mu nekk mbir yi nga xamante ni ñi fi nekk kuréel ñi nekk si kuréel bi ay nit la yi nga xamante ne dañoo yàgg a tojante bopp yàgg ñi wax ni mënuñu ànd gëmuñu euh, ñi nga xamante ni ñooy seen ay morom tey euh, circonstance taxaw ba ñoom ñëpp ñu dajaloo loolu aussi ndax politique euh, moo ko waxal waxa leneen moo ko waxal politique jaare dañuy wax boo gisee ñëpp dajaloo rek am na lu leen boole maanaam am na benn intérêt commun boo xamante ne moo tax ñun ñëpp ñu daal di suuroo def benn lënk def benn link ñoom ñi ñëpp lenn moo leen boolee am na lenn xoom ne moo leen boole mooy ñoom ñëpp kenn parew ci ci élection yi. ñàkk pare ñàkk pare. ñi dajale woon ci table toog doon wax ne ñoom ñooy attelle maanaam dañuy xeex pour des élections transparentes dañoo am benn dénominateur commun mooy ñoom ñëpp kenn parew si léegi comme parew ñu nag tey jii moo waral ñu joxante loxo xool naka la ñuy def euh, pour sàkku lay en même temps. ba bis bu ñu nërmeloo ñu ne waxoon nañ leen ko lii lañ leen doon benn nangam ak nangam parce que dafa am loo xamante ne chiffre la soxlawul ngay gëstu lu sori wala ngay dem fu sori pour xam ko dañu jógee élection présidentielle mu am fi ñu bëri ñoo xamante ne li ñu jaayoon sénégalais yi wan leen ne ñoom ay parti yu ngande lañu dañoo am doole ay kilifa lañ yàgg nañ ci parti yàgg nañ ci politique bi ñëpp xam nañ leen ñu dem élection deux pour cent sax mënuñu ko am léegi kooku bu jógee élection am 2 pour cent. ñu dem 6 mois wala 7 mois wala 8 mois maxi si ne ko da ngay demaat élection kooku tey jii da nga koo bëgg a doggali parce ter tere taxawul. pareegul pareegul waaw. moom déjà défaite bi bi remettre guñ sax sa seen défi ils sont pas encore remis de leur si défaite bi ñu toogoon nga ne leen pëg pëg jógaat leen ngeen demaat élection dañ naan mais kii dañoo bëgg ray benn yoon mm-hmm. moo waral ñoom ñëpp comme ñoo bokk situation boobu ñu ne leen taxaw. ne kat euh, élection yi jaarul yoon wala nangam ak nangam te ñii ma loo xam di nga gis ñoo xamante ne fi ñu toll nii dañuy toog ni duñ dem ci élection bi di nga gis ñoom ni fii dañ naan demuñu élection dañuy boycotté élection non dañ naan dañuy boycotté loolu lañuy wax dañ naan dañuy boycotté léegi boycott boobu nag pour man daw la amul leneen loo ko mën tuddee lu dul daw léegi ñooñu ne dañuy boycott dina am ñeneen ñoom dañ naan non duñu boycott parce que ñu ngi wàcc seen bopp nag am ñoom ñu ngi commencé lëlu déjà Amadou Ba suba war na daje ak ñi nga xamante ne nee nañ mooy ay élu ay maire ak ñi nga xamante ne ay président conseil lañu waxtaan ak ñoom ban taxawaay am ci élection législative bi kooku mi ngi wàcc mais dina am ñeneen ñoo xam ne dañuy daw mooy ñi nga xam ne xam nañ seen parti wala seen mouvement ñoom kenn naa fa nekk te fi ñu toll bu ñu demee élection dafay gën a ñaaw. maanaam di nga si gis koo xamante du am dara ba fa dara boole ay zéro dina ko sàppi. joxe caution 15 millions joxe 15 millions pare dootoo ko gisaat. général piège la. waaw gis nga léegi nag ñoom pour ñu éviter loolu dañ naan nag ah ñun du ñu dugg ci dañ naan duñu dem ci élection parce que waxoon nañ leen ko atal la ñu bokk dañuy boycott du ñu bokk. Mhm. léegi su ko defee nag après dañuy am sañ-sañu mën a taxaw fële ne ah bokkuñu. après sa ëllëg sa bu élection amee bu kenn jógee taxaw yuuxu ñu daw jàppale la ne la waxoon nañ leen ko mhm. élection yi du jaar yoon dañuy róoba def ni fekk ñoom seen bopp la ñu natt xam ne amuñu doole bu ñu nekkee député dañoo daw tout simplement moom ñeneen ñoo xamante nag ñemeew ñoo daw parce que bu ñu bokkul élection dinañ ne ah ngeen ko teg parce que c'est trop léger ngeen toog ngeen ne ñuy yi kat wax dëgg yàlla dañoo jàpp ne du jaar yoon rek moo tax ñu ne du ñu bokk mooy les comme comme comme ku mel ni euh, Khalifa Ababacar ñooñu fi ñu toll nii mënuñoo bañ a bokk ku mel ni Bougane nii par exemple mënul bañ a bokk ci ah, élection yi waaw ñu faxasal la parrainage foog nga dem bokki ñu xool lan nga tollool lan ngay jar ak nan nga toll su waaw wane dooleem su boobaa nag bu ñu ci jógee nag xam nga fi ñu toll day natt boppam ak Ousmane Sonko ak Diomaye mhm. xam nga ba natt sa bopp ak Ousmane Sonko Diomaye ñun dem nañu élection demaat nañ élection demati nañ élection yow demoo élection demaatoo élection demati woo élection léegi nag kon bu élection yi ñëwee ñun dañ naan yàlla ñëw na yàlla ñëw na boo si bokkee ak jàmm ak salaam buñ ci génnee nag ñu xam li ngay peser su boobaa nag après soo ñu ni boo cohabitation ñu ne ah balaa ñoo wax woo leen Bougane mu ñëw wax si wet gi parce que Bougane kat fexe na ba am nombre de voix boo xamante ne mm-hmm. mm-hmm. <coughs> la boo xamante ne dina tax ñu gën a defaraat suñu toogaay ci politique bi dinañ gën a xam kan mooy kan ak ku nekk li nga tekki ci làngu politique bi parce que am na ñu bëri ñoo xam ne fi ñu toll ñu ngi wax te yàlla xam na ne lenn rek la ñuy waxee mooy seen tour mm-hmm. du kenn ko topp seen ginnaaw. Eh, Amadou Ba mi ngi ko doon wax bu Pastef bi mu ne journaliste yi war na gis boo xam ne war nañ cee góorgóorlu tuuti maanaam kii wax ñu laajte yan cadre wala yan université ñoo nekk sa ginnaaw au moins ñu ñu ñu mën am tuuti attaque ci par rapport ak ndax am nga parti wala am nga mouvement. Mm-hmm. da gis kenn koo xamante ne jaara mel nu man dong lay doon. fatt sénégalais su baax ngoon guddeeg bëccëg maa ngi conférence de presse maa ngi communiqué maa ngi tweet maa ngi texte maa ngi lépp lépp lépp lépp te yàlla xam na ne sa parti mënoo feesal ab salon loolu ça pose problème léegi nag bu ñu demee ci élection yi ñoom ñëpp nañ góorgóorlu ñu bokk suñu bokkee su ko defee nag après ku nekk dinañ xam li ngay jar et mm. loolu dinañu dimbali bu baax a baax ñu mën a xam dëgg dëgg dëgg ñan ñooy politiciens yi ñan ñooy de malin yi ak ñan ñi nga xam ne ay figurant kese la. ndax jàpp nga ne coalition bi lee mën na dem ba euh, ndax yow njort nga ni peut am na ñi nga xam ne dañuy boolee seen doole bi nekk euh, coalition boo xamante ne dañuy àndandoo de. Hmm. parce bu ñu boolee seen doole kenn kese lay dimbali mu waxal naa ko mooy Anta Babacar Ngom. Ah, ah, waaw waaw booloon seen doole ñoom ñu toogoon nii. Hmm. bu ñëw dañuy def benn kuréel tuddee ko atel par exemple ñu supposé loolu quoi ñu ne benn coalition wala benn alliance jëlee fi Diomaye ak Sonko. ñu noonu lañ ko tuddee ñu ne yéen ñi si taal bi yëpp ñëw leen mais Anta Babacar lay arrangé parce que parité bi moo tax ak ku mënti jiitu Anta Babacar lay topp sa ginnaaw ak lu ñu mënti am amoo Anta dina doon député di. ah mais buñ dajaloo ñëw ñëpp xanaa gàtt gàtt nañ ñaari député. waaw ah. léegi tëdd liste bi mooy jàll Anta Babacar ñeneen ñi dañuy ñàkk <laughs> ndax buñ <laughs> <laughs> non mais aar Sénégal dafay amoon. dëgg la. xam na. ñi nekk yow ñi nekk si kii bi yëpp ëpp ñaari député dama ne mu Anta moo ci gën a wóor le. ah c'est parce que góor après jigéen. après góor après jigéen loolu laa am lu ëpp ñaari député mais Anta moo ci a wóor que tëdd liste wóoruñu. Mhm. waaye parce que nag euh, député yi du do do doonu loo xamante ni mu tuut lu yomb am la noonu. Mhm. léegi soo ko defee su ñu defee mbooloo par exemple ñun ñëpp léegi def nañ benn bloc ñooy demandoo mais ku nekk danaa li daanoon aar Sénégal du ma daal maanaam ñun ñëpp ñeenti kàngam wala juróomi aar Sénégal ban dajaloo mel noonu Thierno Alassane moo ci rëcc depuis lu force lañ amee Thierno daaw léegi nag tey jii <laughs> ñii dañ naan bu ñu dajaloo def groupe c'est-à-dire su ma nekkul première position nekkuma troisième position bëgguma léegi nag bu ñu defalee liste yi ñu ne ah Moustapha yow gis nañ ne kii bu ñëwee bu Khalifa ñëwee ñu dugal Anta après Bougane ñëw ñu dugal beneen soxna après ñu ne Thierno bokkum ñëw ñu ne Moustapha da nga dem cinquième position du ma ko fay du ko fi xaar <laughs> xam nga li ma la jaar ah, Moustapha ñi ñëpp seen doole bu ñu bu ñu boole seen doole mën nañoo am dix député non yow aar loolu lañ doon wax plus fort ak si lañ jàlle Pape Djibril Fall sax moo raw aar Sénégal est-ce que c'est-à-dire loolu te élection législative la woon hmm. c'est-à-dire il faut ñu comprendre que ne yooyu dooy un plus un un plus un déedéet ñii boo leen dajalee teg leen ñu bëri su ñoom lañ na zéro plus zéro plus zéro plus un égal égal un waaw euh. <laughs> très bien yow da nga ay mathématique <laughs> xam ne du question que dangay ngay dajale zéro plus zéro plus plus un mhm. nekk di loolu moo tax nag ma ne ñoom ñoom seen bopp xam nañ loolu léegi loolu nag dafay waral ñu bëri si ñoom dañ naan bu ñu doon def liste tey jii koo si woon bu ñuy def liste bi yëpp yow yaa koy jiite su baax ngoon guddeeg bëccëg du nelaw dina fexe ba ñëpp ñëw mu jiite leen. Mhm. parce que xam nañ day nekk député waaye boo nee dañuy defar liste bu ñu toogee ci benn salle de réunion kuñ ne tëdd liste nga ne kii moo koy diw yow foo jëm nga non loolu saa yu mënul nekk. Mhm. non foofu ngay xamee ne kon ñoom xam nañ ne mënuñu yóbbu ci pouvoir te pour nga pouvoir cohabiter cohabitation il faut nga am lu ñuy wax ay leaders yoo xamante ne tey jii dañuy représentatif maanaam ñoo xamante ne dañuy fi ngeen toog si taal bi kii day yëkkati loo xam ne man mën naa gagné dakaar waaw assuré naa damay gagné dakaar ñu ne ah kii yëkkati loo xam ne man damay gagné parcelle ñu ne waaw kay kii yëkkati loo xam ne man dama koy gagné de. Mm-hmm. waaw kii yëkkati loo xam ne man Thiès dama koy gagné kii yëkkati loo xam ne man Saint-Louis dama koy gagné après wër ko te ñooñu wax yooyu yëpp dañuy gagné gox yooyu nga ne ah wax dëgg yàlla am nañ ay leader kat yoo xamante ne mais ñi nga teg fii ñëpp fu ñu yaakaaree gañe mooy liste nationale bi maanaam damay dem ci liste nationale bi nga ne bu ñu dóoree sama koñ sax sama yoon nekku si waaye liste nationale bi na mm-hmm. Mm-hmm. léegi loolu nag mooy moo tax toujours opposition dafay liste dafay métti dafay compliqué mm-hmm. euh, ñoo bokk si nag euh, fi ñu toll nii euh, ki nga xamante ne moo di mooy Bougane ñëpp xam nañ ni dafay taxaw taxawaayu chef de l'opposition euh, bu bëggee jàkkaarloo ak ñi nga xamante ne moo di Khalifa Sall naam Khalifa présidentiel neexul woon ci moom waaye tamit du nangu Bougane di ko jiitu. Mm-hmm. Thierno Bocoum lan la pesé ak ban taxawaay la am naka lay mën a jiitoo donc yooyu bëri bëri ay mbir la yoo xamante ne tey jii moo tax man gëw ma ñu mën a am benn bloc mën nañ am nag ay bloc parce que euh, ñu bëri ñoo ci gis dañuy demal seen liste bopp parce que liste bopp moo ëpp avantage. Mm-hmm. moo avantage foofu jaara dafay am benn jaaro xombal la dëkk mais dina def tout ba jéem a gañe xombal xam nga mm. mënul gañe xombal xam na ne bu demee xombal daje fa ak man dama koy gañe mm. léegi comme xam ne dama koy gañe xombal mais mun am na ay voix xombal léegi day jël voix yi mu dajale ko gañe nañ la xombal mais teewul teg nga fële Moustapha teg nga fële Mansour teg nga fële keneen ak keneen ak keneen léegi ñooñu fii nga fi cent voix fii nga am fi deux cent voix kii nga am fii nga am fi mille voix fii nga am fi sept mille voix plus xombal nga fa benn àddinay voix buñ ko dajalee jaara doon député mm-hmm. mais su fekkante ne tey jii dafa ñëw ñu teg ko mu xombal kese bu ñu ko dóoree xombal ak ñàkk na. te fii ñàkk nga xombal waaye bi ñu dajalee lépp ci liste nationale bi am nga benn quota boo xamante ne permettre na la nga jàll plus fort si nekk député. Mm-hmm. moo tax ñun ñu si bëri nga gis ñu am benn baas bi. wala ñu njortee ko seen bopp dañuy préférer am seen liste bopp su ko defee dinañ am ay yoo xam ne dañoo lijjantil côté bi kii lijjanti fële ñu dem fa taf seen i affiche nangam ak foog ma dem assemblée loolu bu ñu ko dajalee nag nga daal dem or bu dee si si départemental lañ nga dugal bu ñu dóori si département bi awut nga bu dee liste nationale nag mën nga taaba taaba góorgóorlu ba am force daal si génn mhm. moo tax ñu bëri ngay gis ni ñu bëri a nekkee mooy ci liste nationale bi parce que boo fàttali ko euh, imam may élection 2017 yi la su ma juumul dugal ci oustaz Aliou Sall mooy su oustaz Aliou Sall nekkoon. Mm-hmm. ndeysaan oustaz campagne ba sonn def lu nekk mais ak parti bi oustaz jàllul oustaz jàllul te après ñu bëri lu ñu doon wax oustaz oustaz ay tax ñu voté ñu ñu voté leen. oustaz dafa dem ba rendre compte ne ah kon kon man ndekete su ma defoon sama liste sax dinaa doon député. député wala su ma defoon sama liste dinaa jàll mais malheureusement nga gis kon ak parti beeg yooyu Euh, moo tax mu jéewut a mujj mujj mujjutoon naa jàll moo tax ñu bëri comprendre nañ loolu. d'accord et puis Aar Sénégal tamit daf leen jox leçon. Mhm. mais Moustapha démb ndaje bi lu muy euh, nekk ndaje yëpp euh, nit ci dañu focus ci benn nit bu fa nekkoon muy Khalifa Ababacar Sall mi nga xamante ni yow askan mi la nekkoon ci jamono diggante mag voilà Ousmane Sonko kenn dootu ko na table tey àdduna di dox politique di dox ba tey jii mu taxaw taxawaay bi nga xamante defe naa ne kenn laam-laameetul. xamante ni ci opposition bi la daal di euh, euh, bokk euh, mu mel ni li ko desee ci sax lu jëm ci wàllum politique njeexitalu politique am la gën a jege jamono ju ñu toll ni ndax jàppoo ni ñenn ñi di jàpp ni voilà dafa xaw a daanu ci ni nga xamante ni noonu la jeexitalee politique am ndax yaak ñoom yéenay partagé ndoo avis bi wala. waaw dina am jafe-jafe trop pour mu rebondir ci politique. Mhm. parce xam nga lu tax. bi ñu demee ci élection présidentielle yi avant ñu doon dem élection présidentielle dafa am fu ñu tegoon xalifa mhm. ñëpp dañ ko yëkkatoon aj ko ci kaw ba booy wax euh, coalition yeewi askan bi sax boo tuddee Sonko lu bëri te tuddoo xalifa sax ñu mere la mhm. parce que dañ naan yeewi askan bi kat xalifa la ak Ousmane Sonko ak Ousmane Sonko tout à fait ndekete yoo yeewi askan wi loolu mooy li am yeewi askan wi Ousmane Sonko loon dàmbo su ma ko mësaan invité mu ne yeewi askan wi Ousmane Sonko kese fa nekk parce que élection yi loolu la wane ah. Mhm. dañoo dem élection après ñun lu ñu la expliqué ñu leen non benn bipolarisation moo amoon nangam ak nangam da ngay choisir kii wala kële non non c'est faux Abdoulaye Wade bi muy wàcc mais ñëpp dañ doon wax tout sauf Wade. Mhm. pourquoi bipolarisation amul ñëpp ne woon tout sauf Wade ñu àndax Niass rek wala Ousmane Tanor Dieng. Mhm. wala Macky déedéet waxuñu loolu ku nekk da nga potal kala neex te pourtant boobu mënoon nañu ñëw Macky dóor ko premier tour wala Macky jàll ñeneen ñi am ay 5 pour cent wala pour cent. mais kenn ki dafa am douze kenn ki am onze xaw ma xaw xaw ma neuf pour cent. Mhm. c'est-à-dire romb nañ sax baar wut jëm jëm jëm kaw. léegi ñi pourquoi ñu bëgg ñoo gëmloo ne waaw bipolarisation moo amoon référendum la woon da nga doon choisir euh, Diomaye wala nga choisir Amadou Ba moo tax ñeen sonn c'est faux jamono yooyu en 2012 bipolarisation amu fi woon xam nga lan moo amoon. Mhm. nit ñi dañoo amoon yeneen leaders yoo xam ne sénégalais wóolu woon nañ leen ñu voté leen. ñu am base am taxawaay bi ñu voté leen mais fii dañ dañoo demoon ba mbir mi doon ñaari nit kese mooy Ousmane Sonko ak ki nga xamante ne moo di Macky Sall Macky Sall yebal Ousmane Sonko yebal ki yebal ki Ousmane Sonko yebal gañe a Sall. Mhm. loolu la mbir mi daal demee léegi ñeneen ñi nag moment boobu noonu amuñu woon taxawaay bi ko war ci langue politique bi moo tax ñu am ay zéro zéro ak ay un. mais di jëm wut lay naan non référendum la woon est ce que dañoo dugg si kër neen référendum la da ngay voté ki wala da ngay voté ki mhm. déedéet mhm. ñëpp la ñu libéré bàyyi leen ku nekk dem wuti ci léegi nag moom tey amee ba day kenn dégg ko woon mu wax malheureusement nag bi mu génnaatee ci attel la génne daa génne di atte xeex te dañoo yaakaar day génne daal di bokk ci mbiru présenté wu mu génne di atte mhm. léegi nag pour man pour mu dellu siwaat du yomb te fi ñu toll li tax mu metti si ñoom mooy comme fu mel ni taxaw xam nga taxaw dafa am jafe-jafe pour pour pour jóg léegi am jafe-jafe pour jóg ñu ne jógal nga dawaat course da koy indil problème. léegi loolu nag moo tax da ngay comprendre ñoom seen seen seen taxawaay jamono ji leen daal dafa metti bu ñu sànni élection yi dinañ bàyyi mandat yi jeexal seen député seen euh, député yi jeexal seen mandat ba mu jeex ñu teg ci maanaam trois ans ñu mën a préparer wu daal di mën a jugaat waaj bu baax a baax mais gars yi comme ni ñu leen bëgg waaxoon moo leen metti que xam nañu ñoom parewuñu déjà présidentielle koppar yi ñu ci def bëri présidentielle yu ñu jeexee ku si nekk sa parti ñu bëri abal nañ la république des valeurs bëri jël seen i dem taxaw bi on a entendu que vingt et quelques cas romb nañ ko abal ko mhm. Idriss Seck partem dara desatu fa donc ñi demoon ci élection yëpp ba ci Bougane mi am na ñu bëri ñëw na bañ pare sax bañ ko wan ginnaaw donc ñoom ñëpp daanaka pareeguñu sax pour taxaw de pour taxaw pour dem pour dem pour dem élection léegi ñu waat leen seen élection léegi loolu nag moo def benn frustration ak euh, ñàkk yaakaar boo xamante ne am nañ ko mais fi ñu toll nii bu ñu demee élection dina am ñoo xamante ne doggali lay doon ci ñoom maanaam imagine toi tey ñu dem élection taxaw jàllee plus forest loolu noo koy noo koy déggee. kenn jeex na. non jeex na c'est fini c'est fini xam nga xam nga Idrissa élection doggali doon ci moom. Mm-hmm. moo gisoo ko fi. non parce politiquement xam na ne jeex na mais ñoom ñii tamit politiquement am na ñoo xam ne jeex na mais nanguwuñu ko élection législative moo leen di wan ne tap tap jeexal ngeen ci langue politique jóg leen ngeen dem non moo leen di yee ne leen jóg leen ngeen dem élection <laughs> politiquement jeex na mhm. loolu nag élection yi moo koy def moo tax du ñu bëgg dem ci élection yi parce que xam nañu ne bu ñu ci duggee rek euh, après c'est fini pour ñoom. d'accord ñu daal jàll wax ci euh, beneen euh, ponk ñeel wàccaayu ubbite école bi jamono ji ñu toll nii nag réunion ñi ngi ko doon amal Ousmane Sonko ca naka noonee jël nañ lu toll ci fanweeru mesure wax na daal ca naka la naka la ñu mën a def ba gën a mën a ñoŋal lu jëm ci njàng mi waaye tamit ba mu cee gën a fes bokk na ci li nga xamante moo jëm ci port vestimentaire ni euh, ay fan ci ginnaaw juróon polémique lu jëm ci wàllum voile yeeg yeneen yu ni mel bi euh, cette fois ci nag gis nañu euh, Ousmane Sonko daanaka dawul raful ci propos yi nga xamante ne moom la yëkkati woon ba mu daal di jur polémique mi nga xam ne ni daal lu jëm ci école étrangère yi ak sax yi nekk ci réew mi nañu daal di respecter lu loi bi wax jëm ci wàllum woowule ba tax daal mu mel ni Ousmane Sonko Euh, polémique bi nga xamante ni voile bi juróon na ko euh, ku ci nekk doon àddu di ci wax ci jamono yooyu tey ñëwaat na gën a dëggal kàddoom yooyu le waaw xam nga def na conseil interministériel. Mhm. jëmale ko ci wàccaay ouverture de classes bi nga xamante ne jàpp nañ ko le sept. Mhm. Euh, ñuy rafetlu jéego yi nga xamante ne gouvernement bi mi ngi koy jàpp ne dina ko def d' abord commencé ko ci orientation yi tey bi ñu xëyee dégg nañ ne le ministre docteur Abdourahmane Diouf. Euh, inscrire na ñi nga xam te ñooy niveau bachelier yi comme ni mu ko diggee woon wala ni ñu ko diggee woon loolu doon euh, lu am solo mu dese beneen jéego boo xam ne ñu ngi koy xaar mooy stabiliser année bi mm-hmm. fexe ba année bi di commencer octobre di jeex juillet mm-hmm. euh, te loolu lu war a mën a nekk la dañ daan dem ba année universitaire bi dafa daan dem ba chevauché ba fekk joxaat beneen année bi waaw donc kon ñu ngi gis ne notamment enseignement supérieur bi ñu ngi ci def ay jéego am solo beneen mbir bi Ousmane Sonko euh, nee na bi ñu ko wanee école yi chiffres yi nga xamante ne mooy école yi nga xamante ne dañu am problème mu ndox école yi am problème mu toilette école yi am euh, euh, problème mu problème mu problème éclairage électricité école yi am problème mu table banc école yi nga xamante ne jafe-jafe yu jàkkaarlool ci chiffres yi école yi am abri provisoire nee na affaire bi daf koo dépassé léegi nag li war mooy naka la ñuy def ak yan jéego la ñuy teg ba gab boobu yëpp ñu résorber ko maanaam fexe ba ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe électricité ñu fexe ba ñu am ñi nga xamante ne dañoo am jafe-jafe table parce que yëpp chiffré nañ ko. Mm-hmm. am soxla nañ temps de table-banc temps d'abri provisoire moom te loolu pour man benn jéego la boo xam ne dinañ léegi dinañ mën a def euh, li nga xamante ne mooy xayma bi. maanaam buñ dawalee ba école bi xaajal wala bu dawal bi dinañ xam naka la ñuy fexe. Mhm. ba rempla remplir li nga euh, li nga xamante ne moo manqué. te loolu yaakaar naa li koy dooree lépp mooy xayma bi te comme def nañ xayma bi démb jël nañ ay ndogal yoo xamante ni yooyu bëgg nañ koo remplir bëgg nañ koo matal on ose espérer que ne dinañ ko jëfe te su boobaa dina doon njëriñu képp koo xamante ne jàngi waaye tamit képp koo xam ne da nga am ay élèves yoo xam ne ñu ngi dem ci école yi parce que si ay njaboot lañu te seen nekk seen noflaay wala ñu nekk si jàmm loolu la di sàkku moom la di ñaan. Mm-hmm. beneen mbir bi am mooy mbiri voile bi gis nga bu dellu woon ginnaaw ci voile bi rek kon waxam dootul jëriñati dara. Mm-hmm. man bi mu ko waxee mu soulever polémique laa leen jeex na mënatu si dellu ginnaaw te c'est un problème boo na ko mu jur problème mu sànni ko daw. yëkkati woon na ko mu jur coow rek daal ne ko jàllax bàyyi ko dem seen yoon parce que bi mu commencé ba ñu dàq booy yi yi jóg après dafa mu ñu jóg ni noonu li ciy waxtaan nangam ak nangam coow li bëri affaire kii rek Macky daal di rocceeku ndànk bàyyi la ñu doxal finalement dañu dem ba affaire bi mel ni da ko da ko da ko da ko wiccax loxo mi noonu dem dem toog noonu léegi nag ñi ñëw affaire bi daal di dalaat seen kaw soo ko def annonce bi weer yële ne ah yooyu kër foog dootu fi amati parce que expliqué ko coow li daal di koy topp. nga gis ne démb wax na ko est-ce que tey déggaan nga coow déggoo coow. démb wax na ko tey déggoo coow kon ce qui veut dire que lële mu waxoon dafa meloon ni benn annonce bu mu leen defaloon maanaam waajal leen seen bopp fu ñu jëm kat ci ouverture yi te ñëpp xam nañ ne le premier ministre n'est pas n'importe qui dans un pays. Mm-hmm. dama jàpp ne bi coow li amee dafa am ku ma si doon waxtaanal ak euh, sama benn waay bu nekk États-Unis mu ne ma gis nga mu ngi mel nii rek nga am sa restaurant nga nekk ci restaurant bi nga ne par exemple euh, du ma jaay ku ci koñ sàngam. du ma jaay ku dëkk par exemple Pikine wala du ma jaay ku dëkk Thiaroye ñu wax la ngay noo maa moom sama restaurant waaw mais loolu tey ji autorité am nañ sañ-sañ ne non kon da nga yaa moom sa restaurant mais cela ne veut pas dire que loolu bi tamit mm-hmm. am nañ droit ñu ne xiif jóge fi jógee pikin wala jóge Thiaroye ñëw lekk bu na mën waa centre ville kese laay jaay mm-hmm. kon moom nga ko waaye am na loo xam ne tamit moom moo ko d'ores et déjà nga ubbi ko rek euh, état bi ñu moom moo la jox agrément moo la moo la téye moo tax ma jàpp ne pour man jarul woon sax ñu koy soulever ay problème déedéet parce que euh, li ñu boole moo ëpp li ñu nar a wutale xale yi daan nañ jàngi di muuru. Mm-hmm. kon buñ jékki-jékkee aaye muuraay bi war nañu mën a delluwaat ñu jàngiwaat di muuru daan nañ jàngi di muuru te yàqul dara ci école bi kon pour man euh, mbir la boo xamante ne bu buñ ko waxtaanee. li premier ministre wax lu xel mën a nangu la ñu bàyyi ñëpp daal di jàngi Sénégal loolu moo fi amoon jaxasoo bi chrétien bi toog musulman bi toog ki gëmul dara toog loolu mooy Sénégal loolu la njàgg xam voilà bu ñu bu ñu duggee ci loolu rek kii fii la bokk moo tax du ñëw wala kii nii la mel moo tax du ñëw mhm. mun na dem juru coow ba ba mu yeggaat feneen suba mhm. eh, te loolu moo tax eh, kenn mënu ci kenn mënu ci d'accord mhm. eh, man ça ne me surprend pas bi premier ministre ne fa mu nekkoon dafay toog ba tey du ci dellu ginnaaw parce que souvent cas cas yu mel nii boo delloo ginnaaw rek après ëllëg dañ la ciy xaaraat ça dire que ëllëg tu es appelé à prendre décision yooyu nag après les gens vont dire que nañ ko teg pression. parce que noonu état warul faible. Mhm. léegi ñu nañ ko teg pression buñ la tegee pression gis ne teg nañ ko pression mu dellu ginnaaw rek dañ naan jeex na beneen fii ngay jóg ak ay marchands ambulants wala ay commerçants. Mhm. jóg jàkkaarloo ñu ñu teg la pression dina dellu ginnaaw na ginnaaw. Mhm. donc moo tax Euh, bu dellu woon ginnaaw dafa am lu muy ndu Moustapha régime bi fi jaar dafa doon am lu mu doon wax muy ubbi jàng tey gis nañ euh, ci euh, réunion interministérielle bi gis nañ Ousmane Sonko mesures yi nga xamante ni jëloon na ko ngir gaaw ñu gaaw ñoŋal école yi ba xale yi mën a dem jàngi ci daar daar bi ndax jàpp nga ni lu ni mel yaa ngi lim sànq problème yi nga xamante ni mi ngi am ci école yi tablement yu yàqu ay ndox ndox yu nekk ci biir école yi ñàkkum courant bi waaye ñi ni sax ñooy enseignants yi jamono juñ toll nii lim bi nga xamante ni euh, enseignants yi génn euh, am amatul maanaam. c'est ça Nicaragua ñi ja am na sax ñu jaar ci géej gi. donc manque d'enseignants yi ci école yi est-ce que jàpp nga ni voilà li nga xamante ni moom la ñu bëgg ibbi xale yi jàngi ci daara gi dina mën a nekk. Euh, ren nag pour man am na boor yoo xam ne li ëpp ci Sénégal war na mën a nekk. Mhm. parce que Dakar bi ñu xam fi ñu nekk li ci gën a ci école yi taawuñu nekkuñu ci ndox yi kon nawet amoon na ay fi jamono ji nawet yi am na école yoo xam ne gars yi da nga daan dégg ñu naan waa banlieue bi ñu ngi dëkk ci école yi dem nañ dëkk ci école yi ñu génne leen école ñu naan du ñu génne ci école yi amuñu fu ñu jëm ndox mi nangu na seen kër ñu ngi fàttali jamono gunaas bi mu fi doon taataagu métti mm-hmm. gi ñu récupéré woon ci ay école lañ leen yóbbu woon mm-hmm. waaw am na ci benn année boo xam ne di set bi nekk Pikine Géejawaay da nga daan dem ci vacances fekk njabooti ci biir salle de classe yi ci biir salle de classe njabooti dëkk fa dëkk ñu doy waar sax nga daan gis waaw mm-hmm. ci biir salle de classe yi di jëfandikoo douche école yi kër yi ñu def ci ay rideau def nii yu kenn xamul daal mbir mu doy waar nga daan gis ci biir euh, ci biir ci biir école yi comme ren loolu amul lii des mooy def def benn désherbage dindi herbe yi ñax yi euh, préparé te loolu je pense que mën nañ ko ci benn ci benn week-end wala quelques jours avant ouverture bi euh, buñ ko defee dina kon man pour man même bu effet bu effectiful à cent pour cent mën na effectif à quatre vingt quinze pour cent wala quatre vingt dix huit pour cent euh, parce que euh, si yenn situation yi nga xamante ne ñu daan amul ren mm-hmm. beneen mbir bi am tamit mooy personnel enseignant bi tamit da ngay gis ne euh, je pense que ñu bëri ci ñoom ñu ngi ci disposition yi nga xamante ne mën nañ reprendre cours yi dem joxe ji cours yi yi ñu ngi fi kon ubbi tey jàng tey am naa yaakaar ne war na war war na war na mën a nekk mais nag dafay commencer ci parents yi mm-hmm. parce que élèves yi ñoom ñooy dem jàngi parce que am na ci parents yu bëri yoo xamante ne li ñuy jàpp dañ naan noo premier jour yi bul dem am na parents yu bëri seen doom première semaine bi duñ dem. Mhm. dañ naan école ubbi na la set ñu ne la set ba quatorze doo génn kër gi wala sax ñi gën a dee sax dañ naan weer bu dee ngay jàngi. décembre. waaw waaw waaw décembre normal jaamu Sénégal moom décembre bu jàllee rek la affaire yi. noonu xam nga <laughs> comprendre nga loolu léegi rawatina sax loolu ñi nga xamante ne ñoo nekk ci lycée yi. wala mm-hmm. primaire sax mën na tane parce que ñu nekk. primaire day tane mais lycée yi moom euh, décembre. lycée moom booy doo leen fa gis. janvier la ñu gis octobre doo leen <laughs> gis novembre ñenn ñi décembre dañuy. Mm-hmm. yàlla nag bu mu doon classe d' examen. Mm-hmm. ba moom ñu war a reprendre. am na ci ay anciens redoublants yoo xamante ne <laughs> balaa ñoo ñëw janvier la ñuy dugg ci classe waaw waaw da ngay dem ba sa foog na dootuñu jàngeeti janvier li ñuy ñëw voilà commencé di jaay ne man xamoon naa programme beeg yooyu. Mm-hmm, mm-hmm. mais ak lépp lu ci mënti am parents tamit il faut ñu dimbali ñi nga xamante ne ñoo di euh, euh, enseignants yi ñi euh, teel a yóbbu xale yi ñu teel a jàngi comme ça ñu mën a matal kantam horaire bi nga xamante moom lañ leen di xaaree. d' accord euh, affaire Jérôme euh, Bandiaky bi nga xamante ni defe naa ni ñaari fan yi saf na sàpp ci actualité réew mi euh, moom la ñu teg ko loxo ni ki démb voilà daat nañuy dem ci Mbour ngir takk der yi def descente ci gërëm moom mi leen la nag na ji dañu koy li ci liñ koy tudd bari na lool lu ci mel ni DJ Bandiaky ak ki nga xamante ni mooy Fulbert Sambou waaye tamit lu jëm ci Dame Mbodj nga xamante ni ko daal di attaqué woon ak yeneen i mbir yi nga xamante ni boobaak léegi ñi ci jot ni moom mi lay def ci daal laale mu nekk maire mi nga xamante euh, nag ba ñu daal di saytoo ay mbiram ginnaaw li enquête bi génne euh, moom mi lay garde rapproché wu Macky Sall la woon ak ki nga xamante ni mooy Mimi Touré waaye tamit ci loolu yemuñ ci ndax moom mi lay di zérom dafa amoon logement de fonction en passeport diplomatique jamono ji ñu toll yi nag euh, tekk nañu ko loxo ndax nee nañ dafa daal di laale ci ay mbir yu bare bare Moustapha waaw arrestation la boo xamante ne Eh, bi mu amee bërki démb si guddi ñëpp ñi nga xamante ne daan nañ yàgg suivre lu jëm ci émeutes yi ak ñi nga xamante ne ñu daan def naka sudul noonu ñu leen daan tuddee ay nervi ak ñu ni mel ak yooyu eh, jàpp nañ ni ñenn ñi sax cerveau lañ koy woowe parce que jàpp ne am na yu bëri yu doon am yoo xamante ne moom mi moo ko doon waral wala loxo mi ngi ci. Mm-hmm. mu nekkoon am na yu bëri ñoo xam dañoo jàpp ne loxo mi ngi ci parce que moom moo ko doon def wala moom moo leen doon jàppale ak yu ni mel ak léegi ci kaw loolu nag euh, arrestation bi mu amee ñu bëri dañoo taxaw ne ah kon kat war nañu mën a am yaakaar ne am na yeneen information yoo ne dinañ génn ci kanam tuuti information yooyu nag moom la nit ñi nekk di xaar jamono ji parce que ñu bëri xamuñu ko woon après comme ni nga expliqué nii biñ ko jàppee ci lañ xam ne kan kot moom moo yoroon sécurité gi nga ne moo di Aminata Touré te bi mu yor sécurité boobu c'était en gis nga mi ngi nii fii Macky Sall moo nekkoon fi euh, bi Macky Sall la woon ak jamono yu mu nekkee ci biti ci opposition bi autant pour moi laataa mu doon nekk chef de l'État c'était en 2012 moom moo yoroon sécurité Macky Sall 2009 ba 2012. ok moo yoroon sécurité Macky Sall waaw moom moo sol lu bëre nekk ci kanam nii. d'accord 2009 euh, ba 2012 moo yoroon sécurité Macky Sall 2013 ba 2014 mu yor sécurité Aminata Touré. waaw léegi kon kooku tey jii yàgg nañ ko xamee pax moom lañ doon dàkkante le sniper sniper mooy ñooñu nga xamante ni ñuy ñuy ñuy viser rek bu ñu viser du ñu rate waaw bu ñu viser rek du ñu rate ko déggoo ñu naan kii sniper la ñu koy tooñee xale yu góor yi. ku mel koo xam ne ku mu doxaan rek jàpp ko dañ naan ki sniper la waaw ñoo noonu la tooñee yenn yenn waxambaane yi léegi sniper yi gars yi ñoom mën nañ toll mën nga nekk fii ñoom ñu toll sa ajak-jak buñ leen natteer buñ dóoree rek lañ lay jam dañuy am benn jubant boo xamante ne léegi nag sniper par rapport à lan est-ce que cible bu ñu ko jox fa du ko rate wala yu ni mel ak yooyu moo tax ñu leen doon ko woowee le sniper on ne sait pas mm-hmm. mais en tout cas euh, image ak ni ñu ko expliquer Euh, gis nañ sax dañ koy wane yenn saa mu yor ay kalachnikov ay armes yu diis yoo mm. xamante ne euh, dañ koy wane moom mu mu téye ko euh, di ay image yoo xamante ne doon na koo xamante ne miin na jëflante ak ngànnaay ak yu ni mel ak yooyu léegi nag bi loolu lépp amee ba ñu interpellé ko dafa am ñu bëri ñoo xamante ne dafa am leen yëm parce que fekkee ne ñëw sa kër fekk fa passeport diplomatique. Mm-hmm. yow agent de sécurité lan moo war a jox passeport diplomatique c'est déjà un problème nga ne da yor benn société de gardiennage. d'accord loolu mën nga koo am parce que sénégalais nga comme ñëpp après euh, ñu bëri nag dañ ne société boobu noonu moo doon servir de nervi hmm. da doon recruter di jox gars yi ñuy dumawaat ak yooyu ci mbedd mi. am na ñu ne hmm. euh, daanaka koo xamante ne moo nekkoon cerveau di xam gars yi gros bras yi nga xamante ne ñoo dem di xeexi ji ñuy dóoraateeg nangam ak nangam ak nangam mais loolu lépp enquête dina ko leeral. Hmm. léegi su fekkente ne nag loolu lépp dañ ko gis ñu gis ne logement bi nga dëkk biir plateau logement de fonction la. ça pose problème. lan moo rawoon a jox logement de fonction bi beneen mbir la tamit boo xamante ne euh, enquêteurs yi daal nañ koy gis def nañ perquisition foofu def perquisition këram bi nekk Mbour ba nee nañ jël nañ ay documents yu bëri yóbbaale nañ ko. Mm-hmm. kon du ñàkk d'ici lundi wala dans les jours à venir. dinañ am plus d'informations concernant tax ñu teg ko loxo. Mm-hmm. maintenant dégg nañ am ñu wax ne tudd nañ ko ci mbiri Fulbert Sambou ak Didier Badji. tudd nañ ko ci mbiru Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang parce que amoon na ay émeutes ci am ay yu yu mel ba am suñu ñàkk seen bakkan ba ci mbiru Adji Sarr ak Ousmane Sonko amoon na amoon na ay émeutes sax tuddaat nañ ko ci. mbiru dàmbooj mbiru waaw mbiru dàmbooj bi aussi tamit am na am am am nañu ko parce que euh, ñu bëri biñ ko jàppee démb dañu posé question bi mooy waa añu amnistie bi. Mm-hmm. parce que am na sax ñu ne waaw moom xanaa dafa jaakaaroon ne amnistie bi moo tax tey jii kenn du ko jàpp moo tax mu des fi parce que bu doon ñeneen ni ba léegi génn nañ dëkk bi bu yàgg mm-hmm. comme passeport diplomatique la am ba gars yi faloo ngay dajale sa njaboot daal di génn dëkk bi dem toogi bitim réew jàpp sa njàmbur dem toogi beneen dëkk mais ñu bëri dañu jàppoon ne amnistie bi doon na loo xamante ne tey jii euh, waaw moo leen moo ko bàyyi ci dëkk bi moo tax kenn mënu koo jàppoolu yu ñuy mel ak yooyu bokk na ci li tax ñenn ñi yaakaar ne bu fi toogoon ba léegi loolu moo ko waral mm-hmm. parce que ñu bëri fii ñun loolu lañ doon wax amnistie bi ndeg amnistie bi amnistie bi kenn du leen kon li am démb dafay wane ne gars yi dina am ñu ñu topp dina am ñu ñu topp te si kanam tuuti dinañ ci gën a xam dara parce que ñaari tànk lay doon benn tànk benn tànk bi dafay jóg mu topp ji ñi nga xamante ne dañoo sàcc alalu réew mi beneen tànk bi jóg topp ñi nga xamante ne dañoo def naka sudul noonu xam nga dafa am lu am xam nga ñu sàcc alalu réew mi beneen mbir la mais ñu leen def naka sudul noonu jaarale tax mu doy waar mooy daf si am ñoo xamante ne li ñu doon def faat nañ bakkan ñii rey nañ leen ñi gaañ nañ leen ñii euh, ñàkk nañu presque seen seen seen seen seen mobilité mënatuñoo dox yu bëri am na si ñoom waaye léegi ñooñu tey ji su fekkente ne interpellé ñu leen def loolu wala jàppuñ leen ëllëg ku si dem di campagne kër goo dugg ne damay campagne dina yow de sama mbokk mi ñii bañ ko defee nii ba léegi waxoolu si jëm kon mais mais donc kon bu boobaa xanaa loi d'amnistie bi day topp Moustapha Mbaye ndax euh, bu fekkee Jérôme Minier li ñu koy euh, tuumaal dëgg la euh, ci diggante mars 2021 la mbir mi am ak 2023 te loolu yëpp bu ñu fàttali ko loi d'amnistie bi daf ko daal di muur donc naka la ñu mën a lijjantee kaawu Jérôme bi bu fekkee fay yooyu yëpp dafa bokk ci loi bi loi d'amnistie bi xam nga tey jii ñoom waxaguñu lan moo waroon ñu interpeller ko mm-hmm. wax nga dëgg su fekkente ne feew dafa dugg ci loi loi bi ko war a couvrir mhm. amnistie bi dafa ko war a effacer comme ni mu effacer yeneen yi mhm. mais dafa am loo xam ko effacer mooy torture d'accord torture loolu dañu may convention yoo xam ne même ko sa a àtte boo koy bu bitim réew ñu àtte ko waaw moom mën nañ taxaw ñu ne ko amul ko am mhm. mu dugalee plainte am si ay nit ñu woo ko déglu ko démb dañuy daal di instruire plainte bi xool ñëpp ñi nga xam ne concerné nañ ci photo yi mu leen jox ak information yi mu leen jox yëpp ñu dem wëri yi ñi xam ne ñoo ko parce que ay cas de torture la léegi kii mën nañ koo jàpp enquête bi bu demee bu wër gis na participer woon na ci ay nekkoon na tortionnaire quelque part maanaam am na mu torturé def na naka su noonu loolu dañ koy insu daal di koy topp ci loolu mm-hmm. waaw cest à yoo xamante ni tamit mën na am euh, bu duggee ci torture boo xamante ni def am bokk na ci wala yu ni mel mën nañ ko jaare foofu ñu àtte ko ak yu ni mel waaye tamit mën na am yenn délits yoo xamante ne tamit euh, mën na ëpp naa bàyyi noonu mu jàll waaw loi bi ko mënu ko mënu ko mënu ko mënu ko mën na bañ a am rapport ak li nga xamante ne moo di am par exemple bu dee Didier Badji Fulbert Sambou kooku am na si defu ci dara mais mm-hmm. mm-hmm. tax su fekkente ne c'est une personne boo xamante ne jàpp nga ne am na information yu mu yor wala c'était le cerveau kooku boo ko récupéré après di may ay information yoo xamante ne mën nga si lijjanti yoo xam ne bokkul ak amnistie bi parce que bul fàtte ne bëri nañu fi xew yoo xam ne jotewuñu dara ak amnistie hmm. ak Didier n'a rien boo jëlee torture yi nga xamante ne moo fi xewoon tuuti mënoo ko boole ci événement yi hmm. parce que torture moom beneen mbir la d'accord te loolu bëri woon na fi. Mhm. Euh, réew daal di euh, jëm ci suñu point bu mujj muy reddition des comptes compte judiciaire bi nga xamante jamono ji ñu nañu ko daal di euh, tere génn réew mi même bu fekkee sax na nga xamante ñu ngi yi nga xamante ni ñu ngi koy daal di véhiculer donc mu nekk mbir mi nga xamante ni Moustapha liggéey bi pôle bi tàmbali na ko am na ñi nga xamante sax njott nañu semaine bi di ñëw dina leen daal di convoquer. waaw ba tey rek jot nañu information ci je pense que yéen kaay bi l'observateur mun am na benn homme d'affaires na homme d'affaires boobu mooy mooy ubbi fool bi. wo wo joxe ñu turam mooy ubbi baal bi léegi nag après. Euh, du ñàkk altine du ñàkk weekend bi. moom ñoo xamante ne suba. même semaine bi sax nee nañ semaine bii di convocation dina ah, ñu jot seen i convocation semaine bii di ñëw ñu commencé di leen déglu et su boobaa nag après ñu toog déglu leen. Mm. xool naka la ñuy mujjee ak yoon. parce que xam nga semaine bii passé dafa am coow lu jógoon ci ñoo xam ne dañ ne woon dañ leen a tere ñu génn dëkk bi. Mm-hmm. xam nga waxoon nañ ko moment boobu ñu ko wax mu man bu ma gisee liste bi am na ñoo xam ne ñu ngi bitim réew jamono ji man nag looloo ma jaaxal xam nga def sa benn liste dugal ci ay nit def seen i photo nit ñi ñëpp dañ leen naa tere ñu génn plus une centaine de personnes ñoo xam ne dañ leen du ñu génn te fi ñu ko teg dëgër fit kese la ndax moment bi ñu ko wax am na koo xamante ne mu nga toog bitim réew si saa si fa mu toogee fa la photo yi ne man nii lañ ne dañoo tere ma génn te maa ngi nii bitim réew toog maa ngi nii ndekki ci benn restaurant. Mhm. donc nga comprendre que ne kon euh, parfois am na ci information yu jàll loo xam ne du lay am. Mhm. parce que liste boobu am na ñu fi def bañ ko gisee lañ ne am na fii ñoo xam ne ñu ngi ci liste bi te ñu ngi bitim réew jamono ji. Mhm. kon ñoom ñu leen mën a teree ñu génn. ñenn ñoo mën a xam ñi ñu tere ñu génn mooy nga gàddu sa saak wala sa pochette dem bitim dem dem ci aéroport xool di testé képp ku demul aéroport toog donc liste bi exhaustive bi kenn mënu koo am ñëpp dañ doon supposé rek maanaam diw njort nañ amoon na problème ak diw njort nañ ne diw benn rapport def na ko nangam diw nangam ak nangam diw yaakaar nañ ni ñu dajale ñoom ñëpp ne kon daal yéen du mënoo génn réew mi jamono ji mhm. noonu la demee woon mais du woon benn information bu fiable léegi nag bu ñu jubloo ci mbir mi nag après c'est dañuy xam concrètement ñan ñooy ñi nga xam ne ñooy jël ñooy jëflante ak yoon ak ñu dul jëflante ak yoon mhm. te boo xoolee mbir mi comme nañ ko annoncé déjà ni ñu tere ñu génn rek ak yooyu yëpp dafay wane kon mbir mi narul gaaw narul gàtt te nar na jël temps léegi nag dafay déteindre ci li nga xamante ne moo di élection législative yi parce que boo moytul ku ci mel ni Amadou Ba mën naa wéet loolu ci campagne am. Hmm. que di nga ci gis koo xam ne nar naa xëy nar a campagne yi ñi la wër ñëpp ñu récupérer leen <laughs> na <laughs> mën na gën a indi frustration mën na gën a jox beneen tournant campagne bi. Uh-huh. waaw parce que dinañ ah man kat yéen a ngi gis fi ma toogoon di campagne démb démb convoqué nañ samay ñetti ñoñ fi ñu toll ñoom ñëpp ñu ngi dem leen ak yoon di ñëw. Mm-hmm. ñenn ñi. Euh, dañoo am liberté provisoire ñenn ñi denc nañ leen kaso donc yooyu noonu yëpp ay mbir la yoo xamante ne euh, il faut ñu prévoir ko euh, si kanam. donc mhm. moo tax ma jàpp ne pôle bi am na liggéey bu baax a baax boo xamante ne mi ngi koy xaar mais nag sénégalais tamit ñu ngi ubbi seen i gët di seetaan. ñu ngi bi seen i gët di seetaan parce que ñëpp xam nañ ne dafa am ñaari régime yu fi jaalante ñun naa ñi biñ ñëwee dañ ne woon dafa am alalu askan woo xam ne dañ koo lekk te jaarul yoon mhm. donc ñun bu ñu ñëwee du ñu lekk seen xaalis waaye dinañ leen dabul li nga xamante ne dañ ko sàccoon. Mhm. léegi ñooñu dinañ leen dabul li ñu sàccoon tey jii dañuy gis ne après dañuy wëlbatiku di singali waate ak di xeexaate ak di jaay doole waate. Mhm. léegi nag loolu moo tax nag tey jii ñii fi ñëw tey jii dañ ne amoo amoo leen droit jaar fi ñu la jaaroon. donc li ñu leen war rek mooy fexe ba ñi nga xamante ne tey jii euh, ñoo fi nekkoon luubal alalu askan wi. wala ñu jël euh, xaalis bi randal ko am fu ñu ko duggulu ngeen delloo ko fa mu war a dem jaaree lépp yoon je pense que loolu mooy fi nga moom lañ leen di xaaree boo gisee pôle bi ni ñu ko tegee jël temps lépp ñu def ko ndànk-ndànk step by step je pense que euh, ay assurance la yoo xam ne bëgg nañ koo jox réew mi pour wan leen ne ah ñun kat euh, fa ñu nekk wala fa ñu jëm. li ñu tax a jóg mooy mbir mi daal di jaar yoon mu am transparence mm-hmm. am na solo Moustapha Mbaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mm-hmm. merci soxna Diarra mm-hmm. kontaan